sama gémmiñ mën naa am barke gémmiñu Cheikh Anta mën naa bañ barke sama bos am barke seen gémmiñ mën naa am barke gémmiñu Xulyo mën naa am barke voilà ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax auditeurs yu Zik FM internautes yi di ñu xool ci euh, Zik FM 89.7 officiel waaye ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Sen TV la télévision leader téléspectateur yu Sen TV nuyuwaat nañu leen jëm ak yéen 14h Zik Feeling yokku cere doon li ñeex Xulyo ak séeréer bi ñoo di gunge xulio naaj bu tàng bi lay ñëw alaaji xulio c'est que man xam nga njoon ah comme man seetlu naa ni bu ma seetaanee match bi Sénégal nul mbaa ñu dóor ko waaw te léeg-léeg toor fa kàll bu ma lee Sénégal tamit des fois mu nul mbaa ñu dóor ko waaw léegi man fi mu stratégie bi ma jël mooy mooy Sénégal équipe bu may fubal équipe boobu laay faral. waaw yow bu ñu faral gaa. ba pare du ma seetaan match. bu fekkee li nga wax ni yëpp am na. waaw loolu yooyu moom ñu faral. yooyu moom ràññee naa ko ci sama ci sama bopp. bu fekkente ni yow nga ne équipe boo faral dañ koy gagné. waaw ak lan nga wax. maanaam bu ma seetaanee match. bu fekkee Sénégal ngi fool ma seetaan match bi. waaw tamit damay kii quoi damay. dañuy nul maa ñu gagné. léegi bu ñu seetaan benn. loolu la deuxième bu ñu faral. noonu laay def. voilà moo tax match bii di ñëw diggante Sénégal ak euh,

mbooloo mooy doole mag ma da dema déedéet. Mhm. du mbooloo mooy doole mais xel xol yu ànd mooy doole. mooy doole c'est ndax bu fekkee da ngeen nekk mbooloo moo xam ni. ne da ngeen di ànd ci si ci biir ànd bi. te booloowu leen. booloowu leen yéenantewu leen jàmm. déggoowu leen kenn ku ci nekk mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wut defetu moromam. c'est kenn ku ne mi ngi wut lu gàllankoor moromam. Mhm. mbooloo moom yàlla da cay génnee loxoom. dëgg la da cay génnee loxoom. dëgg la mais bu fekkee mbooloo mi xol yi ànd na ñi daal di bëggante yërëmante. Mm. soppante yiirante yàlla da cee dugal loxoom. c'est vrai mbooloo du doole. waaye xol yu ànd mooy doole. mooy doole kon nañu booleel dooleel suñu gaynde yi ñaanal suñu équipe nationale bii coupe bii nga xam ne moom la ñuy wër ay ati ati at. Mhm. yàlla dogal ñu indil ñu ko ci at mi ci mbaaxu yàlla yéen man dem. voilà yàlla moo ne ñaan leen ma ci gémmiñ gu ngeen mës tamoy. Mhm. kenn ku ne nag bu ñaanee yàlla mën def mu nangu. dëgg la man nag je lance solennel solennellement cher. Mhm. Euh, message à la nation comme le faisait Senghor. qu'une bise génneel way wi. bis bi nga génnee teaser ci la Sénégal gagné 2-0 alaaj damay wax de pour nga déglu ma dafa mel déglu woo ma. si ah, maa ngi lay déglu parce que fattuma samay nopp. waaw non dama lay waxal rek. maa ngi lay déglu voilà nga may xoolaale aussi donc Queen biis bi nga génnee sa teaseru vidéo bi xaw ma vidéo xaw ma lan la teaser boobu nga génne ci la Sénégal gagné 2-0 xale yi bàyyi leen Queen biis mu way. Mm-hmm. xale yi ci internet bi. Mm-hmm. gis naa leen ngeen naan Biz bu mu way Biz jig nañu. Mm-hmm. Biz wayal. wayal ñun yaa ñu saf wayal. man kay man bis day xam dañuy xabtal. man man Queen Biz na way. waaw ah. Queen na way mais xam nga lan laa bëgg. Hmm. Euh, soit dis disant sëriñ yi ci soit dis waaw ñi wootee sëriñ. waaw te yàlla xam ne ni imam seen imam bi ne seen quartier sax duñ ko gént. maanaam nit ñi ñi nga xam ne dañuy woone ay sëriñ lañu. Mm-hmm. tey woote ak maqaama. Mm-hmm. te imam bi ne seen quartier sax duñ ko gént. mënuñu koo gént. yaa ngi dégg mënuñu ko gént. ñooñu la ñu bëgg ngir yàlla ñu ngi leen di ñaan équipe nationale bi. bu nu kenn pronostical. bu leen ci wax dara. voilà ay dana dem ak du dem ñaan sant ñu leen loolu. waaw pas de yéen soi-disant sëriñ si waxuma sëriñ su parce que ñooñu toir fakal la am nañu wilaayat am nañu martaba. dëgg la mais soi-disant sëriñ soosu nga xam dañ ni di woote ab sëriñ. Mm-hmm. sol yëre bi sëriñ te seen biir sëriñ nekku fa. maanaam du ñu tëdd sax ba gént imam bi ci seen quartier ñooñu la ñuy ñaan ne leen ngir yàlla. bu leen wax. li laay war a suul. waaw waykat yi nag way leen mooy bu leen wax. dëgg la ay Sénégal mooy jël ndam li man maay ñaan man maay ki nga xam ne maa tey équipe bi. Mm. man maay ñaan ngir équipe bi jël ndam. Mm. équipe bi fu mu toll man la. Mm. dimbale leen ñu ngir yàlla sant ñu leen loolu ñaanu ñu leen ko yéen soit dix ans sëriñ si. waykat yi tam. voilà rek lañ wax mu way de bu keneen way. ah yi. na Queen Biz kese way bu keneen way. na waykat waykat non non non Cheikh pour le moment dama lay wax rek maay yi pour le moment bu benn waykat way équipe bi. bàyyi leen Queen Biz mu way moom moo ñu jig voilà bu keneen way beneen waykat bu fi bu fi génnee way ci wayu Lions yi dinaa la àkk si. waaw ah, man daal man daal njoon man looloo ma ñor moom. sincèrement parce que xam nga ah, xam nga xam nga te fii xale yi dañuy vaar. dëgg la dëgg la. am na ci ñaar ñoo xam ne vaar nañ leen. dëgg la kenn ki dañ ko vaar mu ne équipe nationale du dem quart de finale te romb nañ ko. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la kooku xam nga ni toir fa kàlloog loolu gàcce la. dëgg la nga am say njaboot ñu lay seeraan xale yi di coppite say vidéo di ko teg. di la vaar ñaar yii euh, dafa am benn mag moo mos wax njoon. Mhm. mu ne xam yàlla ca la nga weesu. Mhm. xam yàlla. Mhm. ci la nga weesu maanaam bisub dëmb bi. la yàlla dogal xam nga ko. xam nga ko ndax romb na. waaye mag ñi nee nañ xam yàlla ci la nga weesu. dëgg la mais li ci sa kanam suba. loolu kenn rek ko koy xam. yàlla moo koy xam beneen bi ci tege. am na ay gaayam nag yu muy xamal. dëgg la mooy ñi nga xam dañoo am martabay kësfu. te jubóog moom. xam nga di xam nga martaba boobu. dëgg la ñi am martabay kësfu. mën a xam liy xew suba. te en général ñi am martabay kësfu même suñ dee wax buñ dee wax alima. dañ lay junj. dëgg la dañ lay junj junj boobu nag ñu lay junj bu yëf ya amee yow ci ngay daal di jël décortiquer wax ji opéré ko xam li góor yàlla bi waxoon. dëgg la xam nga Seydina Limaamul Mahdi yu njoon mhm. bi muy nekk fii ci toolam bii ci foire bi. ci foire bi. nga xam ni foire national bii toolu Seydina Limamul Mahdi la woon. Mhm. Seydina di fa bay. Mhm. di fa daan dooleem di ñaq ngir dundal njabootam. Mhm. keroog bi mu fa taxawee. ah yaa ngi dégg. waaw bu baax. keroog bi fa keroog bi fa maam Seydina Limamul Mahdi yu taxawee. daa bay ba mu yàgg. sëpp gob ba am lu ko yàlla xamal ci kës fu. xamal ko ni nga fii nga taxaw nii dana doon marché boo xam marché international lay doon. dëgg la. nit dina jóge fu nekk jaay si fa. dëgg la. teg ci mu gestu yam ci autoroute bi daal ni jaan ju ñuul jii ma gis mu gudd loolu ay gina ay gunóor di dox ci kawam. Mm-hmm. xam nga ay junj la. dëgg la. ñi yàlla may màqaamay kësfu ñoom bu ñu wax dañuy dañuy junj. Mm-hmm. léegi nag boo demee ba jamono dikk nag. bu jamono dikkee ba wax ji dab la. waaw ah, nga nga soog a bu jamono dikkee ba wax ji dab la nag. Mm-hmm. ci ngay doog a xam ni lii la Seydina Limaamul Mahdi doon wax. ndax fa mu waxoon ni fii dana doon. marché boo xam ne àddunaa fi daje. foire internationale moo tax foire internationale nekk. Mhm. ba mu ne jaan ju gudd ju ñuul ji te ay gunóor di dox ci kawam. taliba jaar moom mooy taliba autoroute bi ñu ko dippee. Mhm. waaw. dëgg la donc yéen ñi nga xam ne nag yéen ñi nga xam ne soi-disant sëriñ yaa ngi dégg. bu baax. soi-disant sëriñ yooyu ñuy wax nga xam ni amuñu daray baatin amuñu daray leer. Mhm. bu ñu tëddee guddi sax duñ waxuma gétt yonent bi mais imam bi ne seen quartier sax duñ ko gétt ñooñu la ñuy ñaan ngir yàlla ñu dimbali ñu maanu ci football bi yàlla baax na yàlla baax ay maatee équipe beeg maa ñaanal équipe beeg suba équipe bi dana dóor nangam ak te xanaa xamoon ni boo toog bu ñu leen sarax bi ñuy génne te xanaa xamoon ni gis nga boo alima boo toggee ci rajo bi uh-huh. mbaa nga toog ci télé nga ni ci suba bi Sénégal dina dóor nangam nga gis góor yàlla boo xam ne yàlla du koo may mooy toog téye la mu téye ben per lay dóor ni ki la wax du am deug la yow nga am gatché deug la ba faw ah xale yi tiktok la coupé ci ces vidéo di la di la vaar njoon ma jël <laughs> xale yi la vaar dañ ko ew cam neuf sa ci de la ndeke mooy yaay dëgg-dëgg Abba Sall buur sama nijaay sama yaay eh. déggal foofu cam neuf bàyyi na la sa dee bàyyi sa dee la ndeke mooy yaay man sama yaay Abba Sall buur moom sama nijaay la ew dellul aka mooy chéri kan kookooy moo teel a ñàkk salan la waay goose ewa eh moo tee muy dagg bay des koy mag des ñu ko mag moo ñu koy gërëm waxaatal loolu moo di nga feccam déeta waay tey eh, di nga feccam déeta waay moo feccam déeta waay looloo neex dellu fa nga ni pap feccam déeta waay moo feccam déeta waay tey eh, feccam déeta waay डगल नहीं मुझे आखिर क्या को बाई नहीं गोरे बाई ना बोसम नहीं जाए डाल मोड़ी चाम नहीं जो बाख बिगल कुछ अलाइन दे सम इकुची Hmm, abassal bour sama sama jay la. Mhm. neex fek Espagne. Mhm. ma toro gede bi. ah béggal ci bu baakha bax docteur Serigne Samba ndjay ñu ngi siaré bu baax docteur Serigne Samba ndjay ku baax. so yow sa dundu am na njëriñ. te yewen lol ci xam-xamam. billahi deug docteur Serigne Samba dundu mën ta ñak ci rew mi. neena ko bu la rew mi ragne won deug deug bu gën la xam. wallahi dana am barab yu wedd wallahi deug la ci yow lañuy ñew deug la ñon internet yi ñu ngi partager ñom ñu ni. internet yi ñu ngi ay internet yi ñu ngi commenté. Mhm. Fallou Diouf ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax. di kontaan ci euh, euh, ki nga xam ne mooy Kiné Morom Diop. Mhm. Euh, ndeysaan gaa yaa ngi gaa yaa ngi commentaire. Mhm. Mokhtar Ndoy Lebu Mali Maram Ndoy. Yamoussoukro. waaw voilà yooyu dugguma ci yaa ngi dégg. Mamadou Seydou Kanté. ndeysaan mi nga ca ma nga ca ma nga ca commentaire ya. Ah. Oumy Diouf ma nga ca commentaire yi soxna Faye. Euh, commentaire yi kër yaa ngay bëri euh, pend Kebe mm. Kebe Ndiouga Ali mm. Pape Sow Sow Pula Ardo mm. Makhtar Sall euh, tubaar fa kall xale yaa ngay xale yaa ngay commentaire xale yaa ngi partagé kër yaa ngi bëri dëgg la xoolal fi mu toll nii yaa ngi gis yëf yaa ngi nii dëgg sonn lan sonn ja ndeysaan Euh, alzowat tabarfakalla ma nga ca biir xale yaa ngay commentaire dëgg la xale yaa ngay partage hmm. euh, xale yaa ngay commentaire xale yaa ngay partagé dëgg la hey mbaayi moo Arafat borom borom borom borom Turquie hmm. mu ñu wettali ko njon euh, tey jii suñu jigéen madam madame Guèye waaw di Ngone mhm. tey la anniversaire am Ngone madame Guèye waaw bu la neexee nga ni ngoone cam bu la neexee nga ni Ngone Ngone Guèye toor fa kàll. Ngone eh, tey la anniversaire waaw tey la madame madame Guèye. madame Guèye chéri Modou Guèye. Mhm. mooy suñu jigéen ba nekk fële rek. waaye ba déedéet bi nekk fii HLM. HLM booru dunia borom teraanga yi ci ñun rek wallaay borom dàll yu baax yi tey la anniversaire am yal na yàlla defal la jàmm di ko souhaité happy birthday gudd fan gu ànd ak wér dëgg la amiin waay yàlla sàmm aarte yi xale yaa ngi commenté waaw waaw waaw waaw ngoone dundal téeméer at teg téeméer. di nuyu bu baax a baax suñu euh, xarit Serigne Khadim Jinne. Mhm. ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di kontaan tamit ci euh, Mam Mbacke ca Italie. Mhm. dafa necc ñu ngi lay bëggee baax a baax. Mr mhm. Campos. Cheikh Lo mi ngi wettalikoo ca Paris 18e. Mm-hmm. njoon yëf yaa ngi neex de mu ngoog mi ngi neex ñi ngi leen di nuyu baax sama yubbaañ Sali Anne ñu ngi koy ziar moom itam bu baax madame Sall mm-hmm. ah, ñu ngi ñuy seetaan euh, waxtu wi ñu ngi bég bu euh, baax a baax ci euh, seetaan bég déglu bi mm-hmm. Amadou artiste bu mag bi borom wujju peccar go ñu ngi lay ziar itam bu baax a baax wujju peccar ah, go waaw wujju peccar go bi doon daw seen TV ah, ah ah ah moo nekkoon jëkkëru aaw bi damaa yaakaar da nga ne Amadou ñu ngi koy ne wujju peccar goom xam nga yooyu yi bokkuma ko dama ne borom wujju peccor go. waaw ah. ah, baax na. ñoom wujju peccor go mooy lan sax. ña seen borom kër yay bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay wala ñoo bokk ndey ak baay. ah mi ngi mel ne man ak Cheikh Anta. waaw sa ak soxna Cheikh Anta. ñoo ñooy ay wujju peccor go. waaw waaye léeg gis ay wujju peccor go yu wujje de. wujju peccor go déggoo yenn saa yi mag ñi naan wujju peccor go gën a garaaw wujju. mais loolu nag lu ko fi jar. et eh, bii nii doon daw seen TV koo wane wujju peccar ko. waaw njoon nag wujju peccar ko yow bokkuñu jëkkër bokkuñu dara. seen jëkkër yee bokk ndey ak baay. wax dëgg. mais mais xale bi mujjee ñëw bi moom dafa def aaw keneen ki wujju naa la xamal leen de. loolu la ko def. gis nga kuy wujjee wujju peccor ga ah. yow de kon sa wujju yërëm naa de moo ma jaaxal. <laughs> moo ma jaaxal. Ablaye Makhtar Diop Mbeng ñu ngi lay bëggee baax a baax a baax. suñu papa. di bëgg waaw. Euh, nu mu tuddati encore. borom Famben sécurité borom Famben sécurité. di nuyu bu baax a baax ah. tamit Mohamed Mohamed Mbeng. Mohamed Mbeng Ndiol Mohamed moom mooy célibataire bi. moom Mouhamed kay moom kaawam dafa ah, critique man Mouhamed man man célibataire moom ba ma yëgee ni célibataire laa génn ci moom Mouhamed kaawam dafa critique célibataire yi problème bu am ci réew mi ñoo ko fi indi njoon naa la xam benn affaire ah. ngeen ah, nga naan ay waaj yi xam nga am na loo xam ne mënutuma ko wax kii kii naan mu dégg kii célibataire bi sama ginnaaw naan ma ay waaj yi njoon njoon problème yëpp yéen a ko fi njoon célibataire ak kañaayam te est-ce que kaña gënu leen ndax kaña sax bu rombee nit ñi dinañ yuuxu ne kañaa nga sama sëñ bi di seetaan mi ngi ci course bi sama sama sama sama sama sëriñ bi célibataire la <laughs> di mais mi instant bi mi doon célibataire nekk benn sëriñ am célibataire instant mi ngi ci kurus gi mi ngi ci kurus gi ñoon célibataire bu jigéen mas ngaa dugg néegu célibataire bu jigéen yu fay am laa ilaha illallah néegu célibataire bu jigéen benn du lal lal ba mm. su cee gorge day ñëw rek sànni mbaa mu wutal ko lonkaay yii fii yii fii yii fii saag yi da koy wutal lonkaay mm. ci biir néeg ba mm. greffage yi da koy wutal eh, lonkaay ci biir néeg ba la plupart nag greffage lu ci ëpp ëpp ëpp nag day farox. parce que amuñu jot. xaar bajaan maa ngi jégalu boo nekkee célibataire damay ànd ak xaal. célibataire jigéen ñi silvissé wuñu ah c'est vrai. yaa ngi dégg. célibataire yi ci boppam bu dee jigéen bi. tubaar fa kàll la roq ba ca roq ba fa lay dajale ooyu tilim yaag. mu juuge. robb isaawaraa yu yu ënd yaag. oo yaak ñoom seen fa la koy ngeen baal ma. loolu laa gis yu forox yëpp fa la koy teg. bu dee nag célibataire bu góor classe Cheikh Anta gii nga xam ne tubaar fa kàlla takkunu takkaanunu. ah fu ne nu dig fa takke. dëgg la ñoom boo duggee seen néeg njoon li lay njëkk nuyu mooy xeetu cuuraay boobu di ñetti jar juróom. <laughs> cuuraay bant. mooy cuuraay bant yi <laughs> yooyu. cuuraay bant yooyu ñuy jëfandikoo ñax yu bon yooyu ñuy taal. <laughs> parce yàlla wax nga dëgg. néegu célibataire bu góor boo duggee looloo la njëkk nuyu. dëgg la xeetu cuuraay bant boobu ñu muy ñetti jër juróom. dëgg la. benn soo dugg see boo deful ndànk di nga fakastaloog mooy euh, mooy bale yi bale cent franc yi bale fukki dërëm yi. waaw mais ci digg bi lay dagg. dañ koy dagg ci digg bi. déedéet seen bale yaay bu des li ñuy jël. di ko bale dañ koy ba mu jeex. <laughs> ndion negu célibataire bu góor bo fa duggé célibataire jigen jigéen yaa mer ñom aana ndaw ak ñepp nga mer. lal ba. Ah. du tege du tege ci tagar lal ba à terre lay doon. dëgg la lay doon ci suuf. dëgg la neeg bi du am 16 dëgg la ngir bu classe alima ñoon ni ñëwee ñom directement ci lal ba. ca lal ba la ñuy <laughs> day am benn bidon ndox. ancien célibataire moy moy moy benn moy joxe technique bu célibataire. ndion day am benn bidon ndox bu ñu ab kop tek ko fa pour mu <laughs> fa la ñi nané naanee pareegu ba. seen seen seen néegi lumière bi. Ah. dañ koy kii émail dañ koy émail dañ koy émail émail bu rouge nag lañ ci gën a taamu. <laughs> mu gën a lëndëm. Ah. émail bu rouge ba. John. Ah. beneen bi ci tege dañu am morceau fébéré boo xam ni morceau fébéré boo xam ni. seen yaay mbaa seen seen jabari mag. ñoo koy fébéré ba morceau ba mo. morceau ba moxoñoo jeex. ñu jox leen ko moom ci la ñu fébéré dana am nag sijaada <laughs> waaye sijaada ba. fi ñuy teg tànk yi. day fokk fi ñu teg géej day ñuul. moom lañ koy nëb parce que seen sijaada papa la. sijaada bu jeex bu ñu leen may. waaw kurus nag moom seen kurus la ñuy weddi mooy kurus yi daggee fu ne <laughs> du <laughs> yi. ngeen baal ma rek nag. ànd leen porté ko plainte. et puis nag ñoon ñun ak célibataire ay doom bàjjan la ñu. sax dëgg yàlla célibataire bi ma xamal benn affaire. Euh. nawloo ma leen de. <laughs> lu leer laa la wax. célibataire yi ku a ci yam nawloo ma leen. jot commentaire lu ne. ah waaw ñu ñoom ñoom ñoo xam waaye ma mais mais nag célibataire yi comprendre comprendre leen xamu ñun ak ñun ak yéen. Euh. ñun célibataire ak marié yi. ay doom bàjjan ah waaw célibataire kay du tus. ah. célibataire du dara seex. <laughs> déggal Jules Noël bu euh, dund gis. waaw nee na ma Cheikh li nga waxee ni dund nga célibataire nag. <laughs> ancien célibataire yow <laughs> ancien célibataire mooy génn seeni technique. ah ñu yu góor yi ci am moket nag. Amina moket ba day guus. eh eh. Ndiol laa la wax. Ah. Euh, na Alima ana chimère. le meilleur technicien du Sénégal <laughs> Oumy Diouf. ngeen baal ma rek man ak yéen ñoo bokk dama cee jaar rek moo tax ma xam leen ki ki moo mi ñaanee na Cheikh yaa bon <laughs> dañuy kaf rek di foo di ree baax na. ñoon fa ma yóbbu. ambiance la fii fii laa la bëgg yóbbu. ci yow lay ne jamono la tënk déggal foofu teyal waa kër non célibataire yi mer nañ célibataire dañoo laal seen góom nag ñoom bàjjan lañu nan comprendre rek ñu nag célibataire yi ñu doon ay góor yeeg yu jigéen ñëpp a ngi ñaxtu. xam nga boo gisee may def nii. Mhm. damay bëgg célibataire yi man du ma wax ne ni célibataire jigéen yi ñoo ñàkk jom. Ah. ñàkk ñu jom. nañ wàññi tànn bi tam. non célibataire yu góor yi ñoo ñàkk jom ñoon ñooñu moom ñooñu ñoo ñàkk jom parce que xamu tax ñoon ñoom ñoo war a takke. ñii ngeen baal ma nag samay xarit ngeen mais yéen yéen a war a am jom takke. grand bi la ñuy xaar <laughs> grand il faut ñu xaar grand bi déggal gi commentaire bi ne Cheikh dara naqariwuñ ci parce que li ngay wax ni nga ko miinee da nga cee jaar rek mais ñun dinañ ci jàll dinañ génn. dinañ ko romb déggal fi waatal naa la doo ci wàcc ceyram moo demal man mani sama jikko yiw na sama jëmm ji sax duma ci doyal ndaat tey waa ba tey man mani sama jikko yiw na sama jëmm ji sax duma ci doyal ndaat tey moo demal man mani sama jikko yiw na sama jëmm ji sax du ma ci doyal naa tey waali fan ewaay sàmm fii baax na baax na ci xol yi billaay baax na baax na ci xol yi sabab day ba sax digal lay deme presaro aaroon kumé mo moo fan sa ñang càmmiñal kat ne da ko bandu mon frère ku ne am nga sa meilleur client waali fii baax na baax na ci xol yi billaay baax na baax na ci xol yi déggal fi wallaay fii baax na baax na ci xol yi waali fii baax na baax na ci xol yi Jai Ramdan. Wih. def ko ñetti yoon soxna gin gin gin yow man man def ko soxna Fall gin gisa gin gin yow yaa tey man maa tey Waly yaa tey man maa tey def ko ñetti yoon soxna Fall gin gisa gin gin yow yaa tey man maa tey Waly yaa tey man maa tey man man sama jikko yiw na sama jëmm ji sax du ma ci doyal naa tey Clara déglul fi e eh, waay saa Ramdan ñoo saay saay fay def ko yow yaa man maa tey Waly yaa tey man maa ñetti yoon soxna Fall gin bisa gin gin yow yaa tey man maa tey Waly yaa tey Cheikh moo tey ba tey man mani sama jikko yiw na sama jëmm ji sax du ma ci doyal naat tey Fassane Seck Cheikh li nga wax célibataire yi waroo ko woon wax Fassane looloo ko énervé ba mu wàcc loolu waro ko won def passan célibataire da dang ko woron sóoraale xas yi nga xas célibataire yi ba paasan énervé waccu jóge bureau 5e c'est pas normal cheikh la de man sama yoon nekku ci <laughs> tu responsabilité la mo dé man man mani sama jikko yiw na sama jëmm ji sax du ma ci doyal ndaat Paasan mer na nee na ñaar lay takkandoo ñaar exam def ko ñetti yoon soxna Fall gin gisa gin gin yow yaa tey man maa tey Waly yaa tey Cheikh moo tey def ko ñetti yoon soxna Fall gin gisa gin gin yow yaa tey man maa tey waali yaa tey Cheikh moo tey moo ba tey man mani sama jikko yiw na sama jëmm ji sax du ma ci doyal ndaat tey moo Clara ewaay sama oui moo Clara buai sampah. Mau nyobain das. Julio, Julio, Julio. Ramdan, nyo nyosai sai. Mau Clara. narukan om satak sini ewa santa jadi seko Julio moo fi nekk absente ndax musique bi moo fan ewa santa waalu fii baax na baax na ci xol yi fi lay fii baax na

yow nga ni passal neena na ñaar lay takkano dawar parce que dafa énervé li ko wax bureau ma nga ca kaw a kaw kaw ah, kaw. Ah. fa la jógee ñew fi ndax li nga wax dafa énervé. mais pour ma léral manam ah. maanaam célibataire yi mako saña wax. wa ñi mako saña wax la wax. wa mais ñi nga xam sañu ma len ko wax na ko dëgg yàlla ngi tuup wa célibataire célibataire la rek. et puis et puis xam nga xam nga digënté marié ak célibataire kafante xanté yàgg na fi lélé sax da nga nan gis quartier célibataire yi ak marié yi. def match mais lu ah. ci ëpp bu ñu defee football sax boo xoolee marié yi ñooy gagné célibataire yi comprendre nga. c'est <laughs> cadre critique DJ Omzo. Ah. ñu ngi koy bëggee baax a baax moom moom marié la ñaari yoon. Omar Seck <laughs> waaw moom de ñaari galon la yor. <laughs> nga ne parfum bi muy xeeñ lan la. kanti om Omzo. kii euh, nag. baxu rek la mais Ndiol fi toll nii. Ah. tubaar fa kàlla euh, kii nga xam ni moom mooy euh, Bernadette Bakhoum. waaw nee na njoon waale bi da nga koy biisaat. ah. waaw waaw loolu la wax ci commentaire bi loolu laa jottali naa la ko. mbay loolu du ma ko attan yaa ngi dégg. ne ko mag laa. papa Ndiaye nee na lii cuq na ah doom wax nga turu la turu turu la mag. ah cuq na cuq na. waaw papa Ndiaye. yooyu ancien nante yi la. tur wi nga wax nii. xëy na xëy na peut-être boo boo dul boo dul mag. Ah. Euh, da nga ko dégg ci say magi kër. ancien nandite yi cuq booy li nga wax rëy na de cuq. ah Njoon Cheikh Kanté commentaire na. mu ni lan. déet euh, euh, euh, internet oh ok <laughs> pour muy leer. ok ma foog sama waa ji nga wax sax moo commentaire. <laughs> mi ngi noonu kon Konami Diawara. Thierno Kabou Cheikh Sarr tubaar fa kàlla. Thier mu ni. gars yi ñu ngi ñu dégloo ba gars yi ñu ngi ñu dégloo ba ba Mauritanie. ñu ngi seetaanee ba Gambie ñu ngi seetaanee Côte d'Ivoire ñu ngi seetaanee tamit Guinée Guinée Conakry Guinée équatoriale gars yi ñu ngi seetaanee fu nekk. lingeeru Mansour Dramé mi ngi ñuy déglu Baye Ndaw jërëjëf Rama Diop Fati jërëjëf euh, tubar fa kàlla Adja Nafisatu ay dara jërëjëf Mas Couture jërëjëf Mati euh, Toubab Guèye fay jërëjëf Mbay Moor jërëjëf commentaire ya gaa ya nga ca commentaire njoon Alassane Cissé Madamel Alassane Cissé Alassane Cissé Ndey Soda Sarr jërëjëf tor fa kàlla commentaire yaa ngi kii yëf yaa ngi boy bi ngi neex. kon neex na internautes yëpp ñu ngi leen di nuyu. ak ak euh, téléspectateurs yu Sen TV ñoom yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. mu ngi noonu. mais mais mais ci kanam tuuti incha allah fii quelques minutes. Mm-hmm. wa série bi nga xam ne moo di -hmm. ah Mamadou Lamine euh, Touré. Mm-hmm. Euh, série bi doon daw ci Sen TV. Mm-hmm. ñu wara défat defaat lancement bi ca Grand Théâtre hmm, mu nekk série bo xamé ni boo cette année réalité sénégalaise la fay lay lay lay reflété. Hmm, xale bi bëggoon a way ak histoire am ak yooyu noonu yëpp ak yi ci xew. dinañ ñëw légui ñu waxtaan ci lancement bi. war a am fi nga xamee ne moo Grand Théâtre mi ngi nonu kon xamna ci kanam ci ñu dalal len inshallah ñu dalal ko mom su ko defé ñu waxtan ci événement bu mag bo nga xani ni tubaar fakkal la ñi ngi mm-hmm. euh tuar fakkal la xaar badian ma ngi lay bëggé mm-hmm. célibataire nga sama xarit nga mais yow bokko ci célibataire kaña yi <laughs> xaar lan la jinax ñi ma ko sañ wax non ñi ma ko sañ wax ñoy kaña <laughs> non ñeneen ñi ko sañ wax kaña xaar lan la jinax non bal ma xaar doon jëw rek ay ndeysaan ma doon kaa rek ci kaa bi. Bamba Gueye. Ah. ndeysaan mi ngi wétaliku. commentaire yaa ngi neex de. dëgg la Thierno Kabou Cheikh Sarr jërëjëf ñu ngi lay kontaanee. ñu ngi koy ziar bu wér a wér. ndeysaan Dio Sow Pulaar do nee na Alima Ndione macha allah. waaye jërëjëfati tabarfakalla mi ngi noonu. Euh, Beri Chéri Ibrahima Lo. nee na loo leen def mu neex. Mamadou Lamine Touré. loo leen def mu neex. what's up bro. I'm good man. you feel good. <laughs> you feel good bro. Doing great, brother. How is the weather today? Chilling. Chilling. Chilling it's been a while. It's been a minute. Yep, yep. It's been a long time. How are you? I'm good. I'm good. Awesome. You, ah, I'm fine. I'm very fine, man. Yeah. yeah. I'm very fine because I because I see you today. Hallelujah. <laughs> Ah, sama yoon nekku ci mbay yii ngeen def ni man noonu laa koy làkkee am good yàlla baax na en tout cas ko nag. am good comprendre ko baax a baax lu mu làkk rek xamal ne loolu la làkk. waaw mi ngi baax ci yow kon kon kër gi waaw ah, mi ngi neex. mu ngi neex. ah mais des fois nag ma mere ko trop ci téléfilm yi ni muy def sama rakk ji. ki amoo xanaa. <laughs> waaw des fois mu def sama rakk ji noo xam ne sama xol bi day jëm. c'est vrai bëgg lu ibbi tale bi dugg. kan noonu defal ko bagage génnaat. <laughs> moom ci gulwaar xol bee kan ni muy def kan jàll. ah oui <laughs> ah oui doon jaay booy parcelle xam nga ni. ni ko déy ni ko xolal. say morom bëri jaaram bi dama leen rek <laughs> kan jàllu bokkoon niko yo man may boy parce que man ko kan da doon jengu man ko kan ni ko waxee sax dess na daf waaw daf doon jaay boy taw waaw xam nga mom moom dafa bëgg ndo bi waaw après muy muy séral xam nga dafa bëgg ndo bi dafa waaw dafa bëgg ndo bi da nga ah tu gambi lañ ni ni ni xam ah, <laughs> nga ni gambi ni xam nga nga ko suma ji nag cape bi mom soko ko diigee rek jéem ko vibe affaire cape bi dégg nga cape bi aywa ah, you know ma ne ko nag suma ji man man man boy town la dèjà ñu ngi ciy profité nuyu suñu xarit yi nekkee Gàmbi yëpp mhm. Mhm. ñoom Leydi Cilel Sarr suñu doom baay boobu borom élégance mhm. magazine ñu ngi nuyu euh, monsieur le président euh, Yaya euh, kii Adama Baro Adama Baro Yaya jàmm sama xarit la woon joon maa ngi koy nuyu man it waaye nuyu yaay jàmm sama xarit la woon. di nuyu Adama Baro. di nuyu bu baax a baax sunu xaritu Gambien yi nga xam ni ñi ngi mhm. nekkee Sweden. Mhm. ñi nekkee Angleterre. Mhm. ñi fu ñu mën a nekk rek ngi leen di kontaane bu baax a baax. waxal internet di ñu maanu ci li may làkk seen yoon nekku ci. <laughs> mais ñoom <laughs> daan lay daan kaafare xam nga àdduna moom dafa am gis nga làkki jàmbur. fa nga yam rek yam fa. waaye mais nag mais dëggul fenn dëggul fenn waaw ku waa ji su ah. li nga mën a wax ni ñu understand la rek. mu ngi cool mais Lamine. Mhm. lakk ma lakk ma mais Lamine ah. Lamine Lamine. Mhm. Mhm. anglais. la tuddee bés. day ah tamit déy du làkk bu ne ngay làkk ci réew mu la neex. déedéet non prononciation ba la de. <laughs> ah kon ah, làkkante leen la muy làkk. ma lu la saf ma làkk la lu ma. déet yaa koy làkk léegi la saf. <laughs> ah waaw. léegi léegi ni ñuy def mooy dangay ngay da présenté wu ne leen man la Alioune Dione. waaw maa ngi zik zik fële ànd ak Cheikh Sarr ànd ak Cisco ñu wax yee Mbaye Thiat man damaa topp. non no dóoral mu daanu. non am na sama yoo xam ne dama koy nëb. ba bàyyi ma def. benn ma bàyyi ma def benn nga répété ko non xam naa xam naa li ma wax. non ma def benn nga répété ko. internautes yi dañ may catu. ma dóor la benn nga parce que dama dégg. non da ngay dañ koy répété nag nga dóor benn. léegi nañ bàyyi loolu après ñu def ko oral parce que dañ may catu. voilà

toxal Hollywood jëlee ko Amérique indi ko biir Dakar. Mhm. Hollywood waaw. Euh, red carpet treatment paparazzi mhm. photo session VIP treatment. Mhm. xale yi ñëw sol robe yu doy waaw di direeku di yéeg ci kaw euh, tapis rouge bi. paparazzi yi di jël ay photo maa si yi ñëw Cheikh Sarr ñëw. waaw yi welcome la xam nga mm. tagtagal la. yóbbu la ci ci place bi nga jël sa ay photo ñu bungee la ci salle bi nga tok mhm. préparer hard euh, ñu teg euh, Gloire season 2 premier épisode. Mhm. d'accord deuxième saison premier épisode alors euh, Gloire nag am na ci ay parties yo xamante je pense ñu ko jouer Angleterre xaw ma Amérique hein wa bobu boobu naka la la. ah bobu naka la naka la la bii waaw mais. d' accord euh dafa melni investir ngeen ci lu bari. waaw. waaw am ah, na boo xoolee qualité la. production bi. ñu ngi production bi euh, production de international level la. Mhm. comme euh, ñun cinéma lañ jàng. Mhm. nga xam ne ni euh, cinéma dafa am langage. Mhm. làkk bi foo dem ci àddina comme par exemple tey docteur dafa am langage seen langage bi bopp. tey du ked koo xam ne dafay jóge ci biti rek dugg ci studio bi ibbi micro bi wax. dafa am ay ay ay tam ay yoo xam ne loolu ngay topp. te ñun nag fexe nañ bi nga xam ne. Euh, bu ñu tegee suñu film fépp ci àdduna duñu rus parce que topp nañu sàtt yi fépp topp nañ nom mhm. ci côté production qualité bi top notch ba pare euh, waaw li nga wax investi nañ ci xaalis bu bëri. Ah, ci production bi. mais mais lan moo tax choix Gloire. xam nga show business bi in Sénégal dafa dox. Mhm. mais dafa rëpp. moo tax soo xoolee ci texte bi euh, bu ma ko doon bind ma ne arab bi rëb na gaynde yi xiiru nañ ba yaa ngi dawandoo gaynde yaa ngi rëbbi ji xam nga bu gaynde hiro di di dem rëbb ci àll béy yi buñ ko gisee xam nañ ne buuri àll ñëw na waaw fàttante gi màttante gi doorante gi moo tax ba métaphore yu bëri laa use ci film bi moo tax boo ko seetaan bu ko seetaan rek ne ah, ay ay comédie wala dara xoolal texte yi xoolal action yi xoolal contenu bi parce que métaphore yu bëri lañ ràbb ci biir mhm. mais booy seetaan film ak xel ci ngay understand lan mooy gulwaal mais mais mais mais ci téléfilm dañu gis lekkante bi dafa bëri trop waaw xam nga tegante dil bi pexe ci kaw pexe bi. waaw dafa def cee bëri tam. waaw ku man sa morom duma gi. waaw nappante bi. mel ni ndumbelaan. <laughs> waaw ndumbelaan ndumbelaan. exactement moo tax soo xoolee. Euh, boo yaakamtee rek doo comprendre parce que back stories dafa am histoire yu bëri yu jàll. mais dañ jël showbiz ñu indi ko comme mu nekk comme reflection of what is happening in the show business. waaw xam nga show business moom yow yaa ngi ci biir. xam nga ni muy demee. Mm-hmm. loolu lañ indi teg ko ci kanami nit ñi. loolu ñëw ñu xool xam ne dëgg dëgg show business bi dafa lëcc. la demee waaw nii la demee. Mm-hmm. waaw waaw mais mu demee parce que gis nañ ci de très grands acteurs. Euh, exemple tey jii am na ñoo xam ne dinañ ma ne waaw mais yow lu tax nga jël diw lu tax nga jël diw mais soo xoolee tey euh, cinéma. Mm-hmm. du tout le temps ngay xool ne kii dafa rafet. dama jox ko série euh, euh, rôle bi. waaw léegi léegi mun ngaa romb ci mbedd bi gis benn jaaykati sorance ay waa sorance ay waa sorance boo ko joxee rôle bi lu mooy play ku def cinéma vingt ans du ko mun a def. Mm-hmm. ak noo ko mun a encadré du ko mun a def. da ngeen indi l'homme qu'il exact à la léegi léegi am na ñoo xam ne sax duñu acteur mais waxtaan wala ñu dajee ci endroit ma xool leen xam ne kii moo mun a jouer rôle bi. ba pare nag ñu jël euh, professionnels yoo xam ne ni comme Lamine Ndiaye. Mm-hmm. Moustapha Diop. Mm-hmm. Mody Fall. Ibrahima waaw Ibrahima Mbaye Thié laa bëggoon wax léegi. Ibrahima Mbaye Thié waaw Ndeye Ndeye Sine Sall. waaw waaw waaw ak Rouba Sey. yow ñooñu yëpp ñu boole leen pour def benn production boo xam ne nii ku ko xool di nga xam ne dëgg-dëgg lii production la. Mhm. léegi nag instant bi ngeen war a dugg ci deuxième saison bi. deuxième mhm. saison bi nag ngeen boole ko benn événement de taille. Mhm. comme bi ñu war a def nii euh, samedi bi di ñëw incha allah ci. Mhm. grand théâtre grand théâtre tapis rouge lay doon maanaam Hollywood la ñuy toxal biir Sénégal. Euh, invité mais mais lépp ci invitation. Euh, sur invitation sur invitation lay doon. waaw. ah mais mënoon ngeen ko ubbi nag ñëpp ñëw nag. waaw ah, mais ku bëgg ku bëgg invitation rek da nga call 77 475 18 18. waaw gars yi waaw. 475 18 18 boo ñëwee rek nañ la jox invitation. ba pare ci télé bi tam nañ fi bàyyi ay invitation koo xam ne nii xam nga rek ay question wala internet yi. Mm-hmm. ku bugg a mun na mooy jaar ci Sen TV ñu jox la euh, invitation. mais mais deuxième saison bi mën nañ am ñamali cest dire euh, en fait euh, xam lan première saison bi neexoon na. Mm-hmm. deuxième saison bi. Mm-hmm. tuuti rek ci li ñuy xaar. xam nga comme nga ne woykat bu gën a rëy Afrique. woykat bu gën a doy waar biir Afrique jóge Sénégal. Mhm. représente Afrique fu ne. Mhm. le voix d'or bu yuuxoo yaram yëpp day di daw yaram. Mhm. kawar yaram yëpp taxaw. représente na Sénégal ku jigéen. ku jigéen représente na Sénégal fu ne. fu ne waaw def na lu ne Sénégal. léegi nag mu dem ba jamono. am ñaari frère comme man ak yow ñu nekk ay xarit te ñu ñaar suñu papa yi yëpp ay producteur lañ. am maison production yu mag. mais ñu ñoo war a ndoona euh, société yooyu. ñu dem nag. nekk best gain waaye ñu ñaar yëpp ñu ñu noppa noppandoor xale bi. yàlla def ñu doon pire ennemi. Oh, te yow léegi am nga sa société am naa suma société. Kia mooy OMG. Mm-hmm. OMG waaw. waaw mooy Kia waaw. waaw OMG. te Kia moom dafa dafa soxla producteur en fait. te yéen ñaar ñu ko nopp. ñaar vous êtes des producteurs. waaw léegi ñun ñaar yëpp ko bëgg produit produire mais yaayi Kia ci deuxième saison bi fee bi won wan nañ ne. Euh, kii muy wooyee yaayam ak papaam juru ko eh. mais woykat bu mag boobu noonu mooy yaayam mais kan mooy baayam ah. la question kan mooy baayam mooy baayam léegi Lamine Ndiaye ak Babacar Tabara ñu ngi naan man man maa ko jur ku nekk ne yaa léegi Lamine Ndiaye mooy Ibrahima Mbaye ci ne day def test ADN pour xam ndax moom moo jur xale bi fan la film bi di foofu fan la film bi di mujjee kan mooy jur ki yaa ak Empire Tabara lan moo ko lal yaayu Kya. yaayu mooy woykat bu mag. mooy woykat bi kan kan la. waaw mais dafa bëri ay ay ay ay ay back story laa ba ci biir bëri na hmm. bëri na ay événement bi donc incha allahu taala yan yan yan daanaan ñoo ko war a teewee. waaw euh, événement bi ñu ngi ko tuddee ñaari chef de l' état yi euh, président euh, Macky Sall his mm-hmm. excellency mm-hmm. ak président Adama Barrow mm-hmm. ak sëñ First Lady si. ba pare ñu ngi am euh, wali Balago Seck ñu ngi am euh, Youssou Ndour. Mhm. Ismaïla Kumba Gawlo. ah oui. Euh, Aïda vivian Viviane Chidid. And then uh, the director of cinematography, mm -hmm. uh, Germain Colli, mm -hmm. uh, director for Fopica. muy uh, Aziz Cissé mhm. am nañ uh, Mbakutu Konté from Atlanta am nañ uh, Yamsi Bomsi from Atlanta am nañ Big Endoy haute couture Big collection mhm, Big collection and ah, then am nañ tamit Yama puy and Mami Mbaye from Oslo am nañ ay ay ndaanaan yu bari yu invité ak ak ak euh, naka tuddaati euh, ministre de de la culture bu bu bu Gambie ak bu Sénégal ak ministre de la sport bu Gambie mhm. waaw mais mais artistes yooyu di ñëw dañuy ñëw pour way wala dañuy ñëw pour Top. Euh, seetaan dox ci tapis rouge bi rek quoi waaw ñu bari dañuy ñëw pour dox ci tapis rouge bi assister parce que dañuy rendre hommage Ibrahima Mbaye sorry Lamine Ndiaye Mody Fall ak euh, Moustapha Diop. Mhm. mais comme série musicale la dañuy rendre hommage wala Moussa Ngom ak Thione Seck. mais dinañ ci am ay surprise parce que euh, artistes yu nekk ci gulwaar dinañ def euh, dinañ woy mhm. mais dinañ am surprise. en tout cas nar na neex. waaw ah. loolu ñooñu ñooñu nar a ñëw ñëpp mm-hmm. Viviane. Mm-hmm. Youssou Ndour Wally mm-hmm. Seck Ismaïl yooyu yëpp. Euh, euh, nar na neex macha allah. ñu yemoon juste ci lancement bi rek. Euh, neex na waxuma la ak yooyu noonu bëgg naa gis sa yooyu noonu ah, ngeen di ah? loolu moom dina ma dina ma. damay diri damay diri traite yow. waaw bëgg gis sa robe de. gëj naa ko diri grand théâtre. dama lay boole bis collection. bis collection bis collection laa lay defal robe topp damp bu diree. c'est vrai c'est vrai topp damp bu diree ku rek. ne ko traite bi lu mu gudd doyul. waaw mm, na gudd na gudd na gudd. ah te moom am na yu doy waar. Ah, waaw bis ah, collection moom. Ah, xam ne su waa ji foo taxaw Beyoncé sax yëngalul. c'est vrai waaw waaw. so bi daal ni ñu ko ni ñu ko bëggee dañ bëgg mu nekk history like. Uh, Uh, Sénégal uh, am nañ am nañ am nañ capacity bi am nañ mm-hmm. capability bi mm-hmm. foog na ne buñ toge, rek ñu create mun nañu def lu doy waar Dinko, dinko ne nii uh, duñ ko duñ ko jéegaani daal parce mm-hmm. que Hollywood lu faa xew mu ngee xew fii internet bi di nga xam showbiz gaa ngi ko dunda bu baax mais ñun ñoo war capitalize ñu transform affaire bi monétiser ko xam nga mu nekk loo industry lay doon parce que so xoolee ba tey movement la mooy ay group of people ñu am the same passion and love for it But buñ ko Euh, an industry di nga gis ne di nga compter ba ay ay cent nit yoo xam ne nii dinañ mun a bu nañ mun a njëriñu ci ci ci ci ci business yi show business. am na te bi loolu li ci gën li ci gën am solo mooy loolu dafa dafa waroon jur sax teewaayu ministre de la culture. exactement dafa waroon jur tamit teewaayu ministre ministre euh, nu mu ministre bi yor wàllu tourisme. Mhm. ministre du tourisme. exactement ñoom ñëpp dañ war a teew. Mhm. xam nga tax loolu. Mhm. parce que loolu dafay jaay destination Afrique.

yenn star yi di xool. Mhm. bu ñu ne leen lii Afrique la dañ naan non kon lii am na Afrique. donc loolu aussi tamit day dooleel. Mhm. culture bi mais day dooleel tourisme bi. Mhm. kenn ku ne day bëgg ñëw découvrir li nga xam ne moo am Afrique. donc lii lu ñu war a lu ñu war a dooleel la lu ñu war a yaatal la ba ñëpp jot est-ce que euh, euh, Cheikh Sarr. Euh, cinéma ak culture mooy jaay dëkk. dëgg tey jii boo xoolee Amérique lu ñu jaay mooy dañ ñu gomloo ne. Hmm. Euh, ñoom tey jii boo nekkoon sa cabinet sax bu ñu buggee xam li nga def da nga koo def. mais ci cinéma lañ ko jaaree. Hmm. Hmm. tey boo demee Amérique loo mun munti def da ngay bugg a dem euh, Hollywood. parce que dañu ñu ko jaay. te pour pourtant ñun am nañ place yoo xam ne ñoo gën a yànje place yooyu. ñoo gën a am euh, valeur place yooyu noonu. tey jii bu tegee benn série nga gis ñu teg benn drone mu naaw. ñu won la place de l'indépendance ñu won la hmm. monument de la renaissance da ne ah kon place bi rafet na de bugg naa faa seeti ji kon kooku euh, ministre de la culture wala euh, tourisme fayu ko dara mais jaay na dëkk bi yaa ngi understand te ñooñu bu ñu ci dëkk bi ñu bëree cee bénéficié wu yaa ngi understand so we got to sell our our our our culture liggéey liggéey bu euh, bu am solo euh, maison de production yi gis nañu léegi euh, bëri na. Mhm. Ah, yéen a ngi créé ay emploi mhm. parce que comme li nga wax léegi am na ci ay xale yoo xam ne lii kese mooy seen passion. amuñu beneen métier lii kese la ñu bëgg. Mhm. te bëgg nañ cee tedd bëgg nañ cee teral tam waajur yi. mais yéen yéen maison de production yi est-ce que yéen tamit yéen a ngi gisee wala am ngeen benn kuréel boo xamante ni mooy tax seen liggéey gën a ñoŋ gën a yomb. waaw euh, recently de dégg naa ne ñu ngi jéem a create pour form euh, euh, an organisation boo xam ne pour producer si la. parce que loolu foog ñu def ko. waaw buñ buñ xàcci ndooree door a ndoor dinañ am dara. parce que production dafa métti. Mm-hmm. imagine nga am ay ay soixante deux nit ñoo xam ne ñu ngi ci biir production bi yëpp yaa leen di fay. nga a fay pare chaque jour bu ñëwee tournage di nga leen jox ndekki añ ak place bi yenn saa yi nga def benn séquence nga def ci lu ëpp de temps.

xam nga yooyu yëpp danga koy loué. ba pare équipe technique bi technique bi ba pare nga war a fay place bi nga tourné léegi Dakar soo ne dañ laa ne ndax la pour tournage ñu ne tournage dafa am prix boppam benn appartement deux chambres salon yi nga fay ay cent mill cent cinquante mille bu dee villa la da ngay daw ba sali. yaa ngi war a tourné xëj na benn six mois. nga war a fay chaque jour. léegi léegi producteur bi day def pour passion fay artistes yi li euh, def yëpp moom mu toog xaar yàlla. yaa nga understand moo tax euh, partenaires yaay mooy mooy sponsor sponsor yi foog ñu ñëw ñu ñu ñu jàpp ci affaire bi mais mais mais est-ce que mën nga ñu wax budget bi nga xam ni euh, budget bi nga xam ni da nga ni lii kat dépensé nañ ko ci euh, série bi di Gloire soo xoolee à peu près quoi soo xoolee soo xoolee tey jii ci première saison bi mhm. lu mu gàtt gàtt soo defee calcul lépp lépp lépp yaa ngi ay soixante quinze millions soixante quinze millions soo xoolee lépp c'est waaw soo xoolee budget bi yëpp from début ba fin di nga gis ne di nga def léegi deuxième saison bi man bu ma calcul defee calcule yëpp su ma c'est a lot a money. mais est-ce est est-ce ngeen ci génn en fait. non mais première saison bi moom génnuma ci man mais after da nga koy def because of waaw man dama dama dem ba Angleterre fay xaalis dugg mm-hmm. université jàng cinéma. Mm-hmm. mais léegi man bu ma deful cinéma lan lay def. c'est te da nit tamit boo nekkee ci benn affaire doo def mu mu mu mu dégg nga ne mm-hmm. damay bàyyi. da continuer continue sa sa Je fi à chaque fois Je am évolution am valeur. understand parce que sont Je euh, euh xeeb ko rek ni deux cent mille jour nga multiplier ko par jours ya nga tourner six mois. C'est tal rek. c'est vrai mbay man lolo tax lolo lolo tax ma teel a bàyyi. waaw moom qui moom na joué moi bi bi actrice bi bi tourné ah, ah waaw waaw. Naar Diop. mais Alima bi bi théâtre est ce que may ma expliquer ah, nga def <laughs> joué I can remember that name man. joué xam nga alaaji est-ce que doom doom man yow damaa bëgg damaa bëgg sa sa kii feeñ de li nga mën feeñ. d'accord ok mën nga animation macha allah mais théâtre nga gën a mën.

ah ben oui aleekuma ci mhm. <laughs> mais Lamine benn Lamine benn boo xam ne mais pour dire juste dafa bëri coono. non dafa bëri coono parce que imagine hmm, imaginal tey euh, nga nga war a convoquer ay ay ay quinze artistes. ak équipe technique bi. xam nga ngeen war a tourner na ay cinq séquences ci journée bi. ci journée bu nekk dafa am lu gédda bi nga ko war a jox. Mhm. waaw tey da ngay tourner euh, face bi def euh, face bi def def. yooyu yëpp da koy jël mais léegi nag di ngeen waxtu añ dina fa di leen fa fekk di ngeen añ léegi waxtu reer dina leen fa fekk di ngeen transport yi suñ paree ku nekk di nga koy jox transport ku nekk doo boole kenn ku nekk da nga koy jox transport xam nga lumière yi uh, objectif yi caméra yi da ngay lu par journée loolu mhm. yëpp nga war koo def en tant que producteur mhm. après place bi nga koy tourner tamit di same thing soo dee mujjee seer you know mm. waaye ñun dañ ci am gom-gom mhm. man uh, da moo tax uh, dafa am benn slogan bu wax man maay cinéma mais buma ne amone may cinéma ñene yi dañuy fogné ne xëy na boy buy bàkku la mais du bàkku parce que tey jii boo xoolee suñ suñ borom moom moy cinéma ci bopam aduna moy cinéma Cheikh sar moy cinéma. parce que Cheikh sar tay yow bar ngay ñëw xam nga ni di nga ñëw Zik Philip. Mhm. Mhm. jóg nga euh, sa revier bi alam nga jog futu mhm. xam nga dem sangu ji taxaw sa kanam yi. ya ngi euh, taxaw sa kanam yi setu xol sa bopa bi nga xolé sa bopa yow lan nga xalat waaw mais Cheikh sar tay ana ana mel ana ana ana say sama yaay mi ngi aljana mu ngi aljana waaw. mu ngi aljana waaw yow am na euh, bi nga nekkoon euh, quatre ans. Mhm. cinq ans six ans am na maire bi lan la daan woyal. waaw ay way yu yàgg. doy waar. boo gëmee sa bopp bi am na benn scénario benn journée boo xam ne nii. Mhm. barke yàlla yonente bi mun nga koo fàttale dëgg tey tey jii bi nga nekkee trois ans sax am na loo xam ne mun nga koo fàttaliku. bëri sax waaw tey jii bi nga génnee ci oto bi dugg ci tali moto yi di romba te car rapide alawansi ko si kanam baas teg si mbiri mhm. mais suma yi bàyyi tali bi jaaykati e, gerte caaf bi toog fële yooyu sa bot bi mooy objectif yaa ngee capturer sa brain bi mooy mémoire bi carte mémoire bi yaa ngi mhm. yaa ngi store tey jii benn bés bu ñëwee ne la Cheikh Sall euh, si embouteillage bi lañ lay yóbbu nga war a euh, euh, xuloo ak chauffeur bi mhm. automatique day ñëw parce que si yow li nga dundoon la soo suñ borom si boppam moom mooy cinéma réalisateur bi tey ah, yàlla yàlla daf ko jox benn doole boo xam ne dafa jël boppam di ko wane ci doomu aadama. dëgg la ci cinéma bi réalisateur bi mooy créer monde bu ko neex góom loo nit ñi ne lii dafa existé da danga koy góom su la buggee jooyloo da ngay jooy su la buggee kontaan loo da ngay kontaan a rey mu rey la mhm. ku mu a dekkil mu dekkil la ku mu bugg a génne mu génne la <laughs> nu mu bugg nga xoolee noonu ngay gisee leer xam nga lu ma miin euh. soo su ma ne man maay cinéma ñu foog ñu bëri dañuy foog ne damay bàkku waaye mm. man dama def suma ay gestu dugg a xàlluwa xam lan mooy cinéma moo tax ma dugg ci man maay cinéma mais yàlla suñu borom moo ma woon boppam mooy wane boppam ci man pour nit ñu gëm ne mooy cinéma benn écran nii rek mu muy jooyloo la ba ngay imat. c'est vrai ba nga jooyloo ñi lay seetaan. bi ñi lay seetaan mais nag Lamine ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di joxoñ baaraamu tuuma ci lu bëree bëree bëri. Mhm. parce que téléfilm yi xamuñu dañ doon jooy téléfilm yi jóge Brésil yi jóge yeneen réew. Mhm. Euh, yéen ñu ci mel ne ay daaray Kocc à l'époque di ko mhm. jooytu naan ni ñu valoriser. Euh, film yi jóge Brésil. ñoom mën nañ ko def. ba pare mu gën a mu gën a mu gën a civilisé. Mhm. mu gën a mën a éduqué. Mhm. mais après yéen bi ngeen ñëwee pëcc xob yu bëri. Mhm. dafa am lu bari loo xam ni. yomb yombuñu woon. mais léegi dañoo yomb. muy maanaam bu ñu toogaan ak suñu wayju sax dañ doon ragal a saaga. mais yéen dangeen dem ba jël dugal saaga dugal ko dugal ko ci ci téléfilm yi. ba saaga léegi garaawatul. léegi dangay saaga saagaa fu la neex dootul garaaw. dugal ci ay wax yoo xam ni maanaam préserver wuñu li nga xam ne mooy valeur yi nga xam moom la ñu mooñaale woon. tey wax nga ko daaray Kocc série téléfilm da nga ko doon seeraan bay jooy yëkkat mhm. daaray Kocc da nga doon seeraan seen téléfilm bu kër gi xuloo woon sax bu ñu paree bu téléfilm bi jeexee dañuy daal di juboowaat ah. nekkaat benn mhm. mais léegi dañu gis ne li ngeen di wane ci sexe yi mhm. lu ngeen di wax ci sexe saaga bi yenn wax yu ñàkk teggin yu ñàkk kerse yi da ngeen solo bi da ngeen ko bëril ci téléfilm yi ba léegi garaawatu ci suñu kanam est loolu tamit est-ce que yéen scénariste yi ngeen ci bàyyi xel waaw du yoon Euh, xam nga cinéma bu ñëwee day bëggale yëgale xamale jàngale. te bëggale xamale yëgale jàngale bu mënut a def loolu kon da ngay gis ne ni divertissement boo xam ne la euh, amut valeur parce que tey su fekkee ne da nga def fis film wala nga def série because of buzz kon euh, période boobu rek lay am buzz waaye day dee mais boo dee tey daare ko ci boo xoolee say film dafay mel ni démbal lañ ko tey lañ ko tourné. Mhm. parce que message bi da lay jàngal ba tey soo xoolee Ousmane Sembène filmam bi da lay jàngal ba tey soo sooy def scénario dëgg la you want to do commercial pour make money but be careful xoolal de euh, fii ba 10 ans su ma ay doom dinañ ñëw wala su ma ay sët dinañ ñëw te yow sa tur parce que réalisateur bu nekk wala producteur bu nekk. sa mhm. fu muy dem war nga koo bàyyi xel torop parce que mooy sa signature. ñun soo xoolee Goulouard doo fa gis loolu ñun euh, am nañ ay kilifa yoo xam ne ñoo ñu encadré. ñu ngi liggéeyee ñoom te du ñu bàyyi ñu dugg ci yenn gaam yi. kii ba kii ngi nii jaaro bi ngi nii ma ne ko jaaro bi moo nekk ah, noonu mu Alima Ndione moom la ñu wane léegi nii rek mi ngi nii waaw mi ngi nii Alima ngi nii jamono bi théâtre métti na. <laughs> Alima bu yàlla ne waaw léppay changé. léppay changé ay yoon lii béjjën la wala. bu yàlla ne waaw léppay changé. yoon ma sëñ ba ak jin ba oo a ngi nii. Oh. <laughs> rek laa moon époque bi. Ndione ngi nii. waaye film bi jaaro bi moo def lii xam nga ni ku mel nii boo ko yoree. ah non Aliou ma yow nag mais Lamine leen li nekk ci moom. ah ne leen tour de Aliou. ay ay hashtag boobu. wóo yaay. ñu def hashtag boobu leen leen tour de Aliou. jël <laughs> xarit mu ne ma séquence bi. Eh? ku ñuy tooñ rek ngay indiroon. safur la. <laughs> ndaanaan la nag. artiste du daanu. déedéet artiste bu fonkee liggéeyam. Mm-hmm. artiste du daanu. Moussa Ngom mu ne yàlla buur la nit ki mbóor la waaye mbóor yaa ka jafe. dëgg ak jowut ci booree mbóor yaa ci sa métier. dëgg la ci sa métier nga doon mbër. sa ndam feeñ dëgg la waaw ndam bu ànd ak bànneex waaw boo amee ndam amoo bànneex njëriñoo ka jafe dëgg naa dëgg mm-hmm. artiste du daanu del si waatal nañ soxla meen dafa am yoo dafa am yoo xam ne nit da koy juddwaale mm-hmm. da koy juddwaale day nekk ci yow naturel waaw day nekk ci moom donc euh, mi ngi noonu macha allah donc mais en tout cas daal rendez-vous est donné c'est ah vrai que nañuy gën di préserver tamit suñu suñu réalité yi suñu culture dañuy mm-hmm. préserver suñu culture waaw xam ni am nañu culture bu riche donc buñ ko préserver wul rek Euh, ëllëg. lii metti ñu lay jóge ah parce que yow sa doom day màgg. Mhm. Euh, man sama doom day màgg alima mhm. doom day màgg. Mhm. nee nañ doom dañuy màgg. te image dafa nekk loo xam ne day des. donc buñ ci wanewul lu rafet rek. yow sa doom bi lay seetaan sax ci théâtre bi. da yaakaar ne yow li ngay def dëggal. mais ñun suñ théâtre bi suñu métier bii. Uh-huh. ma wax la benn secret suñu mooy gën a jaay seen yi parce que ñun tubaab yi ñoom ñun suñu fekkee dañ bëgg a jaay. mais li ngeen di yàq ëpp li ngeen defar nag. mais suñu ñun comme par exemple tey nga sol sa ndoket wala sa marinière kaba. Mm. tubaab bi loolu la bëgg a gis. bëggut a gis nga mel ni Beyoncé gis na ko Amérique. gis na ko Angleterre dëgg la parce que am na ko dëgg la. ñun suñu la ñu gën a bëgg a gis dañ ñun ñoom seen yi. waaw moo tax su ñu def nañ try ñu fesal suñu ay affaire incha allah kontaan nañu Lamine événement bi. lancement bi euh, kañ la le 29 samedi. samedi 18 pile. na ñëpp ñëw ñu teg tapis rouge. ku ku bëgg a fan ngay invitation. invitation bi 77 475 18 18. 18 call nañ la jox sa invitation. dina am plein de surprises Wally Seck Wally Seck dina ñëw. Mhm. Viviane mhm. Ismaël Lo Youssou Ndour ak mhm. yeneen artistes. et puis euh, dinañu seetaan euh, premier premier épisode deuxième saison bi. Inshallah, incha allah dinañ ko àndandoo seetaan Grand Théâtre Sen TV dina fa nekk équipe bi yëpp dinañ fa nekk. incha ñun ñëpp on sera de la partie. good luck bro good luck good luck. te Sen TV dinañ ko def live. direct lay doon. ah direct lay doon waaw. ah oui alors ah ah, eh. li loolu njoon war a romb rek. ah mais su ma njoon nag dañuy ñëw da ngay ñëw de. Ah, waaw damay ñëw damay ñëw Cheikh Sarr da ngay ñëw. man na xoolal bu ma bu may ñëwee. Mhm. man man du ma sol costume du ma sol karawaat. man caaya laay may ak faaru mbaa bu toj. loolu du problème non non gars yi gars comme ñu ngi foog ne tapé rouge suñ ko ñëpp dañ war sol ko non non non gom sa bopp nekkal sa bopp be yourself. caay laa leen di may be yourself solal lu la neex. caay waaye nag classique nga xam ne nii nga ñëw jaay sa bopp. nga ñëw jaay sa bopp. Ah. mais mais mais su ma est ce xam nga su ma defee caay ak faaru mbaam. mooy daax jël tàngaat ak yet def samay samay dàllu ruggi. mooy daax dox ci digg tapis rouge bi ku fa ñoon dañ lay fàtte. non non parce que loolu da ngay teewal li nga xam ne moom mooy. moom mooy culture Sénégal et puis tu sors de l'ordinaire sax. mi ngi noonu parce que kii sol loolu mooy ki nga xam ne day bay wala mhm. te

seven eight. Hmm. seven five one eight one eight. seven five ok donc mën nga koo woote. and uh, and am na am na beneen nombre boo xam ne ni soo jotut soo jotut bii. Mhm. dinañ la ko jox léegi léegi léegi. di leen wan ne ni surprise yu bëri dinañ fa you know mhm. everybody's gonna be there. Mhm. and it's gonna be a night to remember. Uh, it's going to be history in Senegal. Mm -hmm. The red carpet treatment, the paparazzi photo sessions, the VIP, mm -hmm. celebrity lifestyle, star yi ñëw xam nga ñoom Cheikh Sarr Alima. Mm-hmm. you know dafa nekk lu doy waar so nañ nañ nañ ñëpp ñëw. Mm-hmm. xam nga ñu ñu ñu am benn uh, night bu special. incha second number bi mu ngi nekk 77. 157. 46 81. dëgg la. 77 157 46 81. voilà woote tu ci numéro yooyu ngeen vous am invitation inshallah euh samedi ñu dajé ñun un grand théâtre ci lancement bi nga xam mo deuxième saison euh, série euh, Gouloir. Mhm. merci beaucoup Lamine on se dit à samedi. all right inshallah bro. thank you very much for having me. Cheikh Sarr Ali it was a pleasure being with you. yep. yal na jaamu yàgg amiin incha allah merci beaucoup mu ngoog samedi incha allah ñu daje grand théâtre mami Diop Linguère bi ci TFM ñu ngi lay nuyu bu baax mami tee ngaa bañ a dugg ci chimère ah, <laughs> mami mami mi ngi fan moom ci chimère la jël mami xol bee yaatu mami comme Cheikh Sarr may tooñ de jon ah, ah man mami bi ma ko bàyyi daa yàgg de mami comme Cheikh Sarr xol bee yaatu mami bi ma ko bàyyi dafa yàgg njon mami Linguère bi ma ko bàyyi dafa yàgg ah, day wut wàllu noonu di ma jéem a wutal xol bu sec naan ma ay simeer na jël simeer a ngoog. <laughs> ndey ndey Diouf sama rakk ju néew doole ji sama rakk la joo xam ne seex bu eh, dafa néew doole daal te la jël ay magam kaay fii sama waa ji. doo ko jox li mu bëgg. kan. ndey Diouf yoruma. Hmm. yoruma mbay baay yooyu yëpp pour ñu problème kaay fii. Hmm. ay ca ngeen ngeen jëfati tey ñu dikkati waxati ngeen déggati ñu ti bum ca mboy mboy go ba mu taxaripate xaxam Zik FM Zik Flu ñu ànd ca couche ak légit bi gën mu ndi Kalidix noonu lañ ci àndeek euh, firi mi nga xani pis buy tax nga mën a am ilimix yi bu la neexee nga def ke ilimax man caa woote ko wuyu connecté num la neexee man caa gañeb terrain mba kër gu ne lëmm dëkk dëkkal sa jabar dëkkal yaay bàyyi doom xarit am di jàmb ku la neex noonee bu ñu defee tirage bi mën nga ca gagné billet d' avion Dakar Dubai Dakar mbaay nga gagné ca billet d' bi tax nga mën a dem Cameroun seetaan Coupe d' Afrique ba incha taala bu Sénégal demee di football final Ndiol loolu laa wax. Zik fi leen gi door na ay ca njoon séeréer bu nice feggoog Cheikh Sarr njoon mbaa nga ko yëg. waaw maa ngi koy na ko commenter rek partage yi téléspectateur yaa ngi koy yëg internautes yaa ngi koy yëg mhm. am na ñu mën a topp kaa nag Nogoy Ndiaye mi nee na ma mhm. tata Alima ana grand tonton tase escalier yaa ko fi waxoon d'accord merci beaucoup <laughs> waaw euh, euh, <laughs> Ba euh, eh. Touba mhm. nee na Zik FM 100 pour cent ah Aminata Sakho nee na xol sedd na ah, kii nee na Zik FM yéen a yeewi askan wi wallaay ndeysaan ah. tubaar ah nee na Alima éthiopien accord ba tey. mu ne yow éthiopien man d' accord oh, oh, ok. Oh, d' accord mm-hmm. ok amul benn problème. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. ay ca loo ñu may ñu yóbbu ngewel de bu la neexee. ay ca loo bëgg. ay jamono ji ñu ngi déglu ci Zik FM 89.7 di ñu seetaan ci page officielle bu Zik FM noonu tamit la ñuy seetaanee ci télé bi nga xam ni moo di Sen TV télé bu mag bi réew mi wétali ko déglu li Assane Ndiaye ñu dem seeti Baye Karim ca Ndindi ndax it nag mooy def di Dindi. wareef la ndax it nag olof njaay defal lii bu ne la ca sët ba jàppal ni da koo donn ca maam ja waaye tamit la ca bàyyi doom ju baax a koy donn déglul lii bu tedd boobu nga xam ne mooy bàyyi Abdou Karim Mbakke borom Makarimal Axlaa ki nga xam dañ koo taamu ci jukk yi gën yu rafet yi ndax yàlla ci boppam keroog ba muy tagg rasulillahi taggu ko judd taggu ko ci juddu waaye da koo tagg ci jukko ci jukko kon jukko la nit di gënante ndax jukka ak borom pax dëgg la karaw poqataan la nag dëgg la boo ko lu mu yàgg-yàgg day di kat njoon te nag mbay foofu boo ko dénkaanee boo yéexee mu fekk si la <laughs> lu leer laa boo ko bàyyee ginnaaw boo yéexee mu fekk si la Cheikh Karim Mbacké Fallilu ñu ngi ci ziar yëpp dèjà ah internautes ñu ngi euh, ñu ngi kontaan mm-hmm. euh, Baye Dame Fall nee na mm-hmm. euh, eh waay yëf yi rëcc na ma waay ah nee na Alima ki nekk si ginnaaw ndax mooy chimère du chimère kii Cheikh Anta la voilà kii mooy Cheikh Anta Gaye kay ñoo mën a ah. lux dañuy lux mbut de waaw kay waaw kay ñoo mën a lux mbut voilà ah kii Euh, Ndumbe Khumba nee Cheikh yaa ngi gaañ Alima Dema jàllale émission bi je vous adore de la part de Ndumbe Khumba Fatima Diallo nee je vous love vraiment ah Diakher Gueye nena machallah ani ah, jaaro bi Cheikh sar voilà. Ah. khadim lou mo wax loolu. mon ana jaaro ana jaaro bi. Hmm? maam gorka nena waaw comme guerre mondiale vous êtes les meilleurs. Ah, de sa génération Non, lou ko bindee li nak so len djeko dee len balé hmm. barké yalla euh, macha allah rafet na trop j'adore ça mi ngoog ko continuer len di yone sen ay message hein bu ko defee yéen itam ak téléspectateur yu seen TV en même temps ñu ngi len di nuyu ñom itam bu baax. Mhm. li nak euh, D-Media rek la am mbay FM rek la am. walaay ndeysaan. waaw Youssou bu féké da nga am ko bëgg da nga koy téye. deug la. waaw téye ko téye bu deugër kecc deug na deug bu ko ku la ko téye. dëgg la. du deug deug la ay tia bu melni ni Mami Diop sa xol di doxantu rek. euh, euh ci bir ba nga tuddee Mami Diop sax. Mamy Diop bu TFM. waaw da ko tudd maa ngi tàggatoo. abul def loolu alaaji. non non non parce que sama animation ñoon waroo ko ci dugg Mamy Diop maa ko baax. moom mi kat damaa tey Cheikh Sarr suba simeer ginnaaw ma Samba ginnaaw. am ah, looloo la yoon ni xol ba toogut. waaw dëgg la de dëgg la wax dëgg yàlla bul tàggoo dimbali ma rek bàyyi naa ko. ah waaw. ay naa naayum ñu ngi lay bëggee di la kontaanee mon très cher ami et frère di la bëggee baax a baax a baax. waaw ma Ndiaye. ñaareel xarit ci jëkkëram léegi waxtaana too ci yàlla de yow ca yàlla Oustaz Mohamed Mbaye Jamil déggal li eh Yo Ustaz. Ah. So amee. Mm. Nanko. tail. jàppal te dëgër. ceelaaru wow. waaw waaw. jafandul ci soo amee yow daal na ci téye ko fonk ko bi su ma ko tegee sama xel day dem ci caamaas bu wóor fajiri <laughs> benn feccam bi rek la koy feccee ii ay da koy baaral mu bëgg la bu dëgër à jamais loxo ca kaw cay mbay jéy way rëkkal

mais bu dee ci rajo bi suba di am zik feeling gu neex ajaratu Alima Ndione mbay gàlle maa mbay jooju fari feggoog Cheikh Sarr l' animateur des quatre points cardinaux ah Ndione. maa ngoog. <laughs> waaw waaw. Mm-hmm. rendez-vous samedi incha allah. incha allah waaw ak waa Sen TV. Euh, Pawlish Mbaye ak Ouzin Keita. incha allah ñooy doon suñuy gan. Pawlish Mbaye Ouzin Keita. waaw. ayca comme que fes na mes ne menteñ moo jaaxal ñëpp Cheikh Sarr Alima Ndione nee nañ fes cawle fi des. dëgg la tuuti te am nga koo gënal suuf am nga tuuti bétail am nga koo jëlal mani su bëggee nit mu bëgg la ne kii tege ko na nga tuuti ko ko bëgg na la nga bëgg ko siin te am nga yow ku bëgg am nga